nu di jiital sëñ Muntaqa Mbakke Basiiru suñu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba yéene ji moom am ci liggéeyal Seex Ahmadu Bamba mu def ko ci nu mu gën a mate te ànd mboolem taal bi yépp waaye noonu lañu koy ñaanale sëriñ Seex Jëmb Faal mi nga xam ni moo toog toogee maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall mu def ko ci nu mu gën a mate te ànd ko mboolem taal bi yépp waaye noonu la ñu koy ñaanale Serigne Abbas Mbacke mi nga xam ni moo toog toogab Cheikh Ibra Fati sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ji mu am ci liggéeyal maam Thierno Biré yi mu def ci na mu gën a mate ko mboolem bi yépp loolu maa ngi nuyu bu baax tey siyaar El Hadji maam Thierno Mbacke moom suñu Cheikh Obal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéene ji moom ci liggéeyal Serigne Cheikh Obal mu def ko ci na mu gën a mate tànd ko mboolem taal bi yépp noonu laa koy ñaanale nag sëriñ Moodu Muxtaar Mbàkke moom suñu Seexu Balla sama wasiila maa ngi koy ñaanal saa fan wu gudd lool waa ko wér ba yéene ji moom ci liggéeyal sëriñ Seexu Balla mu def ko ci na mu gën a mate tànn ko mboolem taal bi yëpp ginnaaw loolu seen bokk seen xarit sëriñ Xaadim Mbay Muxtaar moo ñëw ngir ñu war a waxtaane rek kenn ci góor yàlla yi muy Cheikh Ibra Faty boroom Daaru Muxti xam ngeen ni Cheikh Ibra Faty borom Daaru Muxti mooy jàmbaari lislaam ji ndax wérantewu leen ni mboolem fi mas a jaar ci gaa yu baax yi yàlla tànnal na la askan wu baax woo xam ni kenn du cam lu muy xibat ndax doom su bokkee baaxee dana waral ñu séentu ci moom baax loolaa waral sayyidatuna Maryama ba ñu ko yedd ngir defe daf muy yàlla lañu ko wax mooy sa baay ak sa yaay di xamuñu luñ ci ay caaxaan waaye askan wu bon yitam dana waral kenn du ca séentu doom ju baax looloo waral nuux ni yàlla suuf si de boo fi bàyyee yéefar yi dana ñu réeral sa jaam ñi te duñ fi jur lu dul doom yu saay-saay rek baaxi bokk nag dana waral nga seen barke loola sa jëf mayul ndax gis nga ñaari xale yi jirim yooyu yi baax gu seen baay baaxoon walla seen maam rek a taxoon suñ borom xiir xudar ba mu yëkkati sàkkidoo ba ñu gis wur suuñu def suulal baaxi bokk dana waral ngam si euh, dana waral fu si jëf mënta yegg ñu yeggalee laf boo góorgóorlu maam Thierno Birahim nag sunu boroom tànnal na ko ñaari askan yi gën a ràññiku ci réew mi mooy askanu Mbàkke maam Maram ak askanu Kokki mbooleem boroom xam-xam ci réew yi ci réew mi ak wëli yi ci ñaari néeg yi dong lañu sotoo moom borom daaru nag mi ngi gane àdduna yoor yoorub alxemes fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu 1862 ci dëkk bu ñuy wax Poroxaan waaye dafa dajeeg nag ay wéy juróom di toxoo Poroxaan ba tax ñu ngi ko ngéntee Jaabakunda loolaa waral am ñu defe ni fa la gënee dund at mooma ca la maam Bamba moom la ñu tudde Sëriñ Tuubaa ba tey ca la maam sa faatu waaye juróomu góor mi ngi tudd Maam Mor Anta Sali maam Mor maam Balla moo ko jur maam Balla maam moo ko jur bu dee ci wetu ndeyam la maam Faati Jóob moo ko jur maam Faati Jóob Njaga Isa moo ko jur Njaga Isa Modou Faa Xujja moo ko jur Modou Faa Xujja Muxtaar Ndumbe moo ko jur Muxtaar Ndumbe Sàmba Yib moo ko jur Sàmba Yib Ayib moo ko jur Ayib Maar moo ko jur Maar Mujjin moo ko jur Mujjin Demba moo ko jur Demba ma ngi jógeen wàllu digg fi ci réew mi sant Jóob soxna Faty Issa nag ñii la bokkal baay Moodo Mint Samba Mint Balla Soxna Moodu Maam Samba Saasum Moor Xari Mayib Moodu Marema Pend Buya Xari Maam Mareem ak Ndaag ñim bokkal ndey ñii la soxna Aminta Njaga ak Ndumbe Xari soxna Aminta Njaga moo jur Muxtaar Sàmb ak Fayti Sàmb Muxtaar Sàmb moo jur Sëriñ Hamid Diop Fayti Sàmb moo jur soxna Asta ki moom Sëriñ Tuubaa Ndumbe Xari moo jur Madun Penda Diop borom Daaru Mooti moom yi nag kenn rek la bokkal ndey ak baay ci góor muy Sëriñ Moodu Faati moom nag bàyyi fi doom ñaari la bokkal ndey ak ci jigéen muy soxna Aminta Mbàkke ak soxna Faati Binta Mbàkke soxna Aminta Mbàkke lañ jox sëriñ Daam Abdourahmane Lo mu am ca soxna Buso Lo soxna Faati Lo soxna Mariama Lo soxna Roqaytu soxna Xëri Lo soxna Aminta Lo mii wajuru sëriñ sëriñ sëriñ Mbàkke Madina ak soxna Mariama soxna Suloo mooy wajuru soxna Mbeen Fall soxna faytiisa nag yaay mi ngi tudd ab salawbe moom sëriñ ahmadu soxna buso moom maam maaram ñu gis ni kon sëriñ tuubaa maam Thierno bokk nag sëriñ Touba ci wetu ndeyam ak ci wetu baayam ba tey maam Ahmadou Soxna Bousso moom ngi mooy maamam ci wetu ndey tey maam sëriñ Touba ci wetu ndeyam wax nañ ni léeg-léeg bu masaan dégg ak nodd day daw ba yére yi xutti waaye juróom di maam maram gërëmal na ko loolu wax nañu ni bi mu gënee jamono moom Cheikh Ibrahima Fayti moom borom Daaru Muxti sëriñ Maamoor sëriñ Maamoor Seydina sëriñ Touba sa ñaan nga nangu na bi maanaa am nga ko la mën a dimbali ci liggéey bi wax nañu ne boobu sëriñ Touba mi ngi jàng alxuraan ba toll ci waaqi Haaruna ah huwa afsahu minni lisaanan fa arsilhu ma ngi ridan maa ngi ridan yu sadiq nii ba nga ko defee mu jug ja mu jug bindal ko sabatul mun mun jiyaati wax nañu ni bis booba moo tolloog màbba joxu ba di toj Paoskoto nee nañ keroog foofe la ñu toll di digg soxi fital ya nee nañu loolaa waral borom dëru fonk fital ba fii mu ne mu doon doonaada bu siiw ca Daaru Muxti xam naa daañu ci indee leeral ci kanam borom Daaru Muxti nag aw meloom borom daaru dafa ñuuloon ñuulaay bu rafet bu leer dafa gàttoon ak taxawaay waaye ku guddun ay cër la ba daanaka sax bu tollakum jool day mel ni moo ko sut ngir gudday ciri ku teey la woon ku set la woon ku silvisé ku bari fulla la woon ku néew ay wax nga xam ne bariwut ay wax am na benn pël bu ma sa romb ñuy waxtaan mu laaj lu ñuy wax lu ñuy waxtaane mu ne dañuy waxtaane waxi boroom dëru mu ne ah day nar de sama baay nee na ma woon noo bariwut day wax ku ñeme woon toogaay bu yàggalee nee nañu foofu ci pénc mi moom borom daarul Muxti daana fi yàgg lool daana fi yàgg lool ku bari xam-xam la woon borom daarul Muxti xam nga bari xam-xam dafay am waaye nag li ci gën a yéeme mooy nga am xam-xam ba noppi nag di ko jëfi Cheikh Ibra Faty foofu la nekkoon doonoon ku ragal yàlla bo and ak nag di jaamu ci namu mu rafet bari xam-xam di jëfé ragal boromam te di ko jam. am aw fit lol te xiru ko ci muy tooñ jëfandikoo aw fitam mom borom daaru mu ci tooñ waye mom borom daaru muti nak doon ko xamne ku jàmbaare la ndax xam nga njàmbaar gi li la koy xam li mu gor ci bàll bay ko dëkkal fay nit ñuy jaamu suñu borom kenn mësu gis kenn mësu gis ku ko def te lépp lu ci ñor mu jox ko Serigne Touba ba way ñàkk yi Serigne ma pàtti la muy jiite woon tool yi wax na ni borom Daaru Muxti bu ñu masaa bay gerte gi ba récolté ko ba teg ko duñu ko mus ay waa këram duñu ko mus kenn du ko mus ñoom lépp la ko jël jox ko Serigne Touba foofu la borom Daaru Muxti nekkee woon. loolu ma leen nit jaamukat suñu boroom la lu wér la ndax moom borom Daaru Muxti mësul jullee furut ci jàkka ji déedéet kenn mësu koo gis mësul jullee furut ci jàkka ji kenn mësu koo gis mësul julli mukk tiim kenn mësu koo gis xanaa bi mu màggatee ba tële kay lay soog a ci kër waaye taxul mu tiim jàpp rek la saxu woon am na benn bis moom borom Daaru Muxti mu seen benn taalibeem bu tudd Mor Anta Sylla muy tiim mono ko lu tax ngay tii moo ante ko dama am ngant ndax sama yaram ak sama tank da fay bu buma jappé borom daara moti ni ko jappal pexé setan rek la waji tambalé japp muy newé di yok di ñe new di yok bayak muy way bayak muy ko seuf bayak muy pelak nga xamni borom daaru mi mo fonk yàlla te ko ragal te nii léeree digal mboolem ay lé ay taalibeem képp da wax ni bu kenn dugg sama jappo jàppoo da na wax ni képp ko xamni ne lii ci lu sun borom digle jotewul ak man dara kon kii mooy Cheikh Ibrahima Fati kii mooy maam Thierno Birahim kii bi mu Cheikh Ahmadou Bamba di dem ci tukki bi moom la woow ba mu ñëw ne ko sama njaboot gii yaa ma ci doy teg naa ko say loxo Serigne Touba digal ko ne ko Cheikh Ibrahima Fati digal naa la gannaaw bu ma fi jógee ngay liggéeyee mbay caro bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba xàjjale ko teqalante saafonte ak borom daaru wuti ban tàggali ko keroog la si Ibra Faty tàmbali ay jafe-jafe fu mu dem ngir bëgg faa bay bu demee defi ne danañ ko dogalub tool kenn du ko nangoo dogalub tool kenn nanguwut xool borom dëru ndax mbokk gi mu mbokk Serigne Touba ak jamono boobu tubaab yi ni ñu mel ci diggante Sëñ Touba ak borom daaru ak ni tubaab yi mel ci réew mi ci jamono jooja nga xam ne kenn ñi mu ta bokk Sëñ Touba ndax ni mu demee tubaab bi ku dul maam Thierno Biré moom dong mu mën a taxaw yoral ko ginnaawam. kero bi ñu tàqalikoo fu mu dem kenn du ko nangoo dogalu teyool ngir maanaam jege gi mu jege Serigne Touba moom boroom Darou Mouhty sëñ Saliou Mbacké nee na am na bis boo xamante ni nii Cheikh Ibra Fati cim sàq la fanaan moom njabootu moom njabootu sëriñ Touba gi fam yow gépp dugal leen ci biir boofu ci bunt moom Cheikh Ibra Fati lépp noonu la ci njaboot yi rek yegg si ci moom. waaye bi mu jógi joolal dafa sanc fu ñuy wax guy ngura bi mu sancee guy ngura moom si la fëcc foofee nag tawat dafa ñëw commencé bëgg dugg ci tàbb ci njaboot gi wax ni ñi sëriñ Mouhamadou Yeddaali moom Cheikh Moudou Bamba ca tawat joojee la faato Cheikh Mohamoudou Lamine tele télé waxam gi ngay dégg ñu ni da ko télé wax ca tawat joojee la ko jëlé woon keroog nag la cheikh ibra fayti ci boppam ñaan boromam yow sama boroom njabootuk sëñ tuuba njabootuk sëñ cheikh amadou bamba gi bo ci narti jël kenn ma ngi lay ñaan nga jël ki nga xani moy serigne sëriñ o balla wala serigne mouhamadou habib ta bay fi njabootuk sëñ tuuba gi ni ma la wax rek la nekke ak ak touba ba touba ñibisi kenn mësta gis benn leetar bu ko cheikh modou baba bind di ko di ci yedd borom daaru muti ngir ñàkkat taxaw ca santaane yam ko dénkoon gannaaw loolu mësul am mukk yoon kon nag moom borom daaru doon na koo xam ne it dafa tabe ñetti xeeti tabe am tabe ci tabe ci bakkan tabe ci sa daraja borom daaru muti doonoon na koo xam ni dafa tabe woon ci li nga xam ne mooy bakkanam ndax jamono ba taw bakkan mënta weesu mënta weesu yaa ngi dégg de nag sa bakkan te yàlla rekk tax ndax wuutu gi moo la waxoon léegi ca ci ginnaaw wuutu googu ku ko mën a toog wuutoo ko Sëñ Tuubaa noonu ci sa njaboot bu mu si te la nga xam moom la dénkoon dara dara dara wu ca lip jaar yoon loolu mënta weesu tabe ci li nga xamante ni mooy sa bakkan waaye tabe ci sa daraja nag da ngay seet koo xam ni moom Cheikh Ibra féeti bokk ci askan wu baax jàng ba xam la nga war xam ni ko fa kupp demande sa doomi bàyyi loo bay jox ko boo amee soxla nga bàyyi say soxla dem ci soxlaam bu dee ca tabe ci mom Cheikh ibrahim Fati limu jox Cheikh modou Bamba ci adiya kenn munu ko lim jox nako ay ay ay fas jox nako ay dag jox nako ay saako lu ne jox nako jox nako jox nako jox nako seigne touba Tuuba ay adiya kon koku moy borom daru mot borom daru mi nak bisam bi dikk na ñun ñépp nañ maase wajal ko ta xam ni bis la boo xamante ni nii lépp lu fa yóbbu saabara mën na la ko saafara ndax yóbbu dem mu yóbbu fa ñaar rek nga mën a yóbbu loo bëgg ak looy dañ bu dee loo bëgg sun borom mën na la ko faa defal ndax borom dëru yegg na foofu bu dee loo ragal di ko jeñ it sun borom mën na la ko dàqal ndax man mënu borom dëru yegg na foofu kon daal ci gàttal ah foofu laa bëgg a sama kàddu bu ma sañoon danaa ko romb waaye li ma waxoon léegi rek ci tàmbali bi xayrul kalam ma xalla wa dal wax ju gudd daal te mu solo wax ju tënku ta gàtt tam solo moo ko gën kon moo tax ma ne foofu laa yemalee sama kat maa ngi la sant bu baax yow Serigne Khadim Diouf ndax liggéey bi jàpp nga ci ndax kero ba ma la ko waxee ba suñ jonee tey jii toogoo noppalu woo lépp rek noo fexe ba li am kon sëñ khadim ma ngi lay sant bu baax di la ñaanal suñu borom defal la fan wu gudd wànd ko wër kon mbokki julit yi kon ni ma leen ko waxee rek maa ngi sant jëwriñ ji nga xam ne moo nekk fi directeur bi di sant bu baax waa Mouride Info ndax Mouride Info ñoom tam seen taxawaay rafet na lool ndax lépp loo xamante ne lu war di jàllale la vraiment ñoom tam buñ ko déggee ñoom waa Mouride Info danañ jóg def ci ay taxawaay yu mat sëkk ba loola jàll. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa